foo dem obèse léegi même pas 2500 ko dugg dekk bi yàqu ana jigen bu baax amut xam nga yooyu dañu war a jug si bi ñu jug ci ñu genn ko bi mu jeex. dekk bi bi billaay walay auberge yi mom yàq na dekk bi mom na xale yop yàqu nañu. auberge yi ak cag ci dekk bi ñu éliminer ci dekk bi ñu jóge fi sàcc agression bi ko lu lepp lañ mëna wax dal waaw daanaka dara normal Sénégal bo bëggé dégg dëgg mom Sénégal dara normal fi lépp mi ngi tàmbalee ci kilifa yi xam nga rek war a yar sa doom bàyyi ko muy fréquenté ay auberge affaire yooyu noonu yëpp liñ ci war a wax fu bëri daal man toor bi nguur gi laa koy jox ndax ñoom ñoo war a jël seen i mesure ferme ci affaire auberge ak affaire yooyu noonu am na ci sol yi nga xamante ne tey c'est pas boo yaa ngi koy sol ci mbedd mi dugg ci yenn milieu yi bon parce que sol bu nekk dafa am milieu bu am na sol yu nga xamante ne tey moo jàpp naa ne nit waru ko sol di dox ci mbedd kooku mem c'est pas normal parce que kilifa gu ne mën nga ko romb ci mbedd mi nit ku ne ngay romb ci mbedd daal. léegi fi toll nii booy boo waxal ay dem sama gàlle mu naan la nañ dem auberge bi sama yaay du gis dëkk bi c'est pas normal te fi mu toll nii xale yi moom jàngatuñu moom surtout ma sàngara ñaar fukk yi sax moo njëkk a yàq yu jigéen ñaar fukk ya, na yu luñ waaw. c'est pas normal. amuñu benn sécurité suñu liggéey mu amuñu lu ñuy mën a protéger pour suñu liggéey amuñu ay max amuñu lu ñu mën a dimbali ko te xam nga ay père de famille lañ ay sujet de famille lañ xam nga en plus dëkk bi métti na xam nga mun ñoo ngi bëgg a dem Europe ñu dem Europe na xam nga manque de bon moyen yoo xam ne nii mooy loolu. ba bëri si dëkk bi moom benn instant bi moom man moom ànduma si parce que xale yu jigéen yu bëri si la ñuy yàqoo ñu bëri ñuy commencé fo si la ñuy dem xam nga di fo mooy loolu ma soñoon nag xam nga nguur gi dafay jël parteem dox si si war a dox affaire yi xaw a ay jigéen ñi de moom wax dëgg fa yàlla moom li nekkee ci dëkk bi moom pour l'instant nii moom c'est pas normal moom li nekkee si dëkk bi moom instant yi moom baaxul moom ndax jigéen ñëpp fi ne ni amatuñu valeur ci réew mi ndax yenn xale yu jigéen yàq réew mi moom wax dëgg fa yàlla. mën nañ toog ay 2 mois 4 mois duñu am job parfois ñu toog benn yoon la ñu am job si mois bi toogaat ay 6 mois presque duñu am liggéey te loolu dafa metti quoi c'est vraiment dur. il faut qu'il soit très correct vis-à-vis des clients. que dañu recevoir ay nit xamuloo façon nit bu nekk nga gis donc dañu war a yaru poser avoir un bon comportement vis-à-vis des clients nga xam ne kilifa yoo xam ne tey dañoo war a di dem di wax ak ñoom te am na dañuy tànn ñi war a wax ak ñoom waaw c'est pas normal ndax ñun ñëpp sénégalais lañu képp koo xam ne ñëw nga ñu tegle fi place ngay maire wala ngay leneen nit soxla la war nga ko may autorisation mu ñëw wax ak yow waaw ndax dafa bokk ci njaboot gi man étudiant laa damay wax ci li normal mooy bu yi ñu bëgg a wàññi baaxul si ñun ak bi avion yi xam dañoo dañoo seer trop baaxul si ñun maa ngi bagage bu ñu ma fexe bu ñibbi ndax bi avion yi seer nañ ko wàññi ñun ouvrier yi nag ñu jàppale ñu quoi sonn nañ benn instant nii ñoom rek ñooñu mën a jàppale te ñoom sax buñ fi nekkee ñun ñoo leen fi teg bëgg ñu jàppale ñu ndax sonn nañ c'est pas normal c'est pas normal c'est pas normal waaw c'est pas normal C'est pas normal. C'est pas normal